ñëw nañ fii tey pour seet si la ak mbooleem ñi nga xam ne ñi ngi liggéey tey ci keppaaru président Macky Sall mooy APR ñëw fii pour ñëw ànd ak yow ci li waa nekk tey ku ne xam ne ne fan yi ndox mi bari na lool ci booru Saalum bari gi mu bari ci booru Saalum moo tax tey ñun ñi nga xam ne it ñu ngi ci biir dëkk bi di dem ci population bi di ànd ak ñoom ñu xalaat ne nañ leen seet suñu daxaar suñu kecax ñu dajale ko néew na bëri na ñu ñëw teg ko ci sa loxo yow mi nga xam ne yaay gouverneur région de Kaolack pour mu dugg ci biir askan bi pour jàppalante ak ñoom ci ndox yi nga xam ne mi ngi seen biir kër yi wala ci seen biir mbedd yi ku ne xam na ne li ma wax léegi ak benn kilifa bi président Macky Sall jëlee réew mi ak bi bisab tey fi mu jaar ak li mu defagum ci assainissement Kaolack loolu ku nekk mën nga cee teg sa bët ku ànd ak moom ak ku àndut ak moom waxuñ ne lépp yemb na ndax projet boo xam ne ay milliards la nga tàmbali ko lépp mun ta sotti ci benn bés même bu xaalis bi teewoon liggéey technique bi munul sotti ci benn at ku nekk xam ne na daaw ak daaw jéeg ni ndox meloon fii ci Kaolack bu tawee ba pare bu fekkee yàlla rek a tax ñuy wax xam ngeen ne loolu changé na alors loolu nag li ma jàpp mooy mag ñi dañuy wax ñu ne waaw góor dana tax nit gën a ñoqali jëm ca kanam kon président Macky Sall liggéey boobu mu liggéey ak yéene boobu mu am ci biir région de Kaolack tàmbali ko di ko def bañ yegg si fii tey jaadu na ñi nga xam ne dañ fee nekk nekk ak njabootam bu dara xewee ñu ñëw taxaw ci seen wet. pour mu leer fii affaire fii Rahma amu fi Rahma pour mu leer Rahma du parti du mouvement loolu il faut mu leer wax nañ ko ba sonn Rahma du parti Rahma du mouvement raxma dàkkantal la ci tur pour mu leer. APR lañ nekk président Macky Sall mooy suñu patron amul leneen fii ñu fi nekk ñëpp ku ci nekk leader nga buy dox ci biir Kaolack moo xam ci sa tuur wala ci turu keneen waaye li ñu fi dajale tey mooy APR pour mu leer encore une fois maa ngi wax région de Kaolack ne Rahma du parti Rahma du mouvement Rahma APR la Rahma APR la nekk président Macky Sall mooy patron amul leneen amul ñaar amul ñett. li ñu indi fi mu nekk nii nag ay moto pompe la. Il y en a une vingtaine, il y a 20 motopompes. Euh, en relation avec le préfet qui nous a passé le passe commandant sapeur pompier parce que nous on jënd loo xam ne dafay du am utilité pour Kaolack donc commandant sapeur pompier bi avons ñu né nañ jënd ay motopompe a dugg ci biir pour aspirer nos mi donc le euh, caviar et yëpp ak kii partie technique bi yëpp ñu donc en fonction de ça moo a ñu jënd motopompes dina permettre nit ñi dugg ci biir kër yi comme je dis di di génne ndox mi andi nañ fi aussi ay matériel de nettoiement ndax ku génne ndox war a nettoyer kon andi nañ matériel de nettoiement bi andi indi nañ aussi plus tard xam loolu lañ doon wax léegi dinañ la remettre aussi ceeb ak diwlin pour sinistré yi lii daal lu ñu ñu dañ jéem daal góorgóorlu pour jàppale waa Kaolack ndax ñun président Macky Sall lim ñu wax la ñu def Monsieur le gouverneur ce matin nous sommes venus avec une forte délégation de l'Alliance pour la République Yakar conduite par le mandataire monsieur l'ambassadeur itinérant Mohamed Ndiaye pour venir remettre une contribution au sinistrés des inondations de Kaolak. Monsieur le gouverneur, vous savez en fait que nous sommes dans le champ politique et nous sommes des Kaolakois. Et donc, il est une obligation pour nous que quand la population de Kaolack est affectée, que nous leur apportions notre soutien, parce qu'à plusieurs reprises, nous les sollicitons pour leur suffrage, mais nous leur sollicitons souvent aussi dans nos activités politiques. tel qui sous bi mandataires euh, mandataire départemental euh, M. monsieur Mamadou Ndiaye je d'abord parce que dañu ne doo santul nit doo sant doo santul nit nit du nekkee ci dëkk bu mel ni Kaolack muy dëkk bu bu metti si moment yu jafe yàlla dimbale ñu ñu am kilifa gu mel ni moom man parce que nee naa circonstances yu mel nii bariwul mais du amee day jar ñu santante parce que waaw góor dafa baax ci wuy liggéey ñu sant ko bu baax ci teewam ak taxawaayam. sant ko ci initiative parce que politique en fin de compte n'est dara une ay initiative de bonnes initiatives maintenant d'ailleurs lolo, buñ fi dajalé tay yalla def mu jaar ci loxoom ñëpp leader yi nek Kaolack tay député honorable député Awa gay fi Nafi Khalifa Niass tous les marabouts tous les leaders regroupés autour de la coalition lolo dama ne c'est une première après les élections c'est la première fois dañuy occasion bi pour remercier ko ba pare renouveler ko sunu loyauté ak sunu fidélité au président de la République Macky Sall moo ñu ñor Macky Sall moo ñu intéressé te Mamadou Ndiaye Rahma taxawaayam ci Kaolack il faut que quand même qu'on dise les choses telles qu'elles sont taxawaayam ci Kaolack dafa rafet dafa doon taxawaay boo xam ne taxawaayu jaboot la taxawaayu kilifa la taxawaayu taxawaayu mag la taxawaayu ndey la taxawaayu Dom. la moo tax ñu ne nañ profité ci instant yi ci kanamu kilifa gi nga xam ni c'est l'exécutif war ñu mën a jàppale yóbbu njant cant yi ak ngërëm yi ci président de la république mu yóbbanteel ko ngërëm ak cat jëm ci mom parce que tamit nak wax dëgg yalla kuy liggéey pour dëkk liggéey pour sa rew dafa jar moment yi ñu mëna la féliciter parce que askan mi tamit ki nga xam ne moom mooy gouverneur jottali ko président de la république ne ko Kaolack sante nañ ko amal nañ ko ngërëm te li tamit dama jaral wax ma ngi leen di gërëm di leen sant ci délégation bi merci